rek sëñ Babacar si jël rakkam yi Seydi Hadji Mansour eh, Seydi Hadji Habib astaghfirullah Seydi Hadji Habib waaw Seydi Hadji Mansour ah, du noonu eh, Seydi Hadji Abdoul Aziz ñépp mu jël leen yóbbu leen ndar pour ñu yeggali seen àlluwa ak seen tarbiya mu toog fa moom sëñ Babacar si di jóge ndar romb fef Tiwaawan ñëw dakaar ci xàmmeem da romb na Tiwaawan fef du fa sa bu buy buy buy buy jàll sax du xool ndax Tiwaawan la toll def na ko ñetti at yoo xam ne tànkam dëggaatut Tiwaawan nit ñi naan kër baayam ngi dana tas moom kat ñibbi na ndar ndar la nekk loolu buñ koy bu ñuy wax ci moom danañ wax lu doon sabab bi waaye li may wax ci Serigne Cheikh moo tax ma indi loolu kon Serigne Cheikh gànni naa àddina vingt cinq waaw hmm? ah. vingt six vingt sept vingt huit vingt neuf trente soxnaam ndeyam soxna astukan moo ko dalal alif ba kon jigéen ñi dégg ngeen soxna astukan moo dalal Serigne Cheikh alif ba ci ndigalu sëñ Babacar si ndax boobu sëñ Babacar a nga ndar di ko jàngal ci loxol boppam moom soxna Astu ba mu fer ijji ba mën a dawal boole mu yor ko jox suñ Ibra Kan mu yor ko tuuti jàngal ko as lëf ci alquran ak tajwid mu door koo jox ahmad yahya nejaayam la naaru gànnaar la ahmad yahya jàngal ko ba mu mokkal mu door koo jox góor gi màmmaloo ahmad yahya boobu nag wali bu doy waar la woon moo def xasida bii may wax ba alaaji abdou aziz demee kawlax gane ji alaaji ab maam abdou maam ousmane kan ñuy waxtaan ba mu yàgg mu ne ah abdul azizi azizun inda mawlaahu laqaytuhu ngin gi neew mawlaahu yardaahu <laughs> naaru gànnaar bu dee waar la woon kon ahmad yahya sëriñ Cheikh ku ko fonkon la ndax daf ko daf ko marqué wax na ci dundam moom sëriñ Cheikh mu ne benn benn góoru tukkulóor laa mos a am ci ku ma jàngal raxma mu ne te benn bëccëg la ma jàngal njàng ma yàqu ndax daf ma dompat ma fayu mu ne mu dompat ma ma fayu mu ne ma lu tax nga fayu ma ne ko mu ne booba dafay daf may jàngal ne isa jul jilati ma ne ko kenn wax isa jul jilati isa zul zilati la ñuy wax mu dompat ma ma fayu eh, soxna astukat moo mujj ne sëñ Babacar kii góor gi mënu koo jàngal teel a xàmme xam nga kon ku teel a xàmmee la ku teel a xàmmee la ku teel a xam fi mu jëm la mu ngi mokkal alxuraan ci bi mu amee fukki at kon ku teel a mokkal alxuraan bi mu amee fukki at la mokkal alxuraan mook borom daara ji ñoo mokkarandoor alxuraan ñoo doon jàngandoorit ci soxna astu suñ daan jàngit ñoom ñaar ku ci feebar sa morom du jàng ku ci tukki sa moroom du jàng loolu noonu lañ mos di nekk ku feebar ki ci des du jàng ku tukki ki ci des du jàng ñoom ñëpp ay teew rek ñu jàngal leen teewuñu duñ leen jàngal fa tabaarakallaahu kon nit ñi dañuy wax ci diggante yi luñ xam waaw dañuy wax ci diggante yi luñ xam bi mokkalee alquran góor gi màmmaloo jël ko jàngal ko aslëf ci xam-xam sëriñ Alioune Guèye jàngal na ko sëñ Njóoba jàngal na ko sëñ Seybatu Fall jàngal na ko waaye ki ko defar nag defaral ko làmmiñam mu waxal ko boppam mooy Serigne Cheikh moom Serigne Cheikh mu ne sama papa Alaaji Abdul Aziz la nee moo ma fekk rek may wax yu kenn xamul ci daara ji mu ne sëñ Babacar dama bëggoon nga may ma Cheikh tiijan mii ma yóbbu ko mu ne ma sëñ Babacar ne ko bu ma tàggu loolu waroo ma woon tàggu nee na mu jël ma yóbbu ma ngin gi neew xaw na maa rey nee na boobu góor gi dafa xiiboon may bale may fóot may defar mu ne ci boobu ci benn barak lañ dëkk ci ngin ngi new benn benn néegu barak néegu ñax barak la ba pare ñu def ñax ca kaw nee na fa la dëkk mook si ñabd Cheikhul Hadj Abdou Aziz nee na bu guddi jotaan jot bu ma jàngalee ba noppi dafa ma naan jógal tëdd ci kaw lal bi nee su ma tëddee cof mu ne ma sama nawle nga tëddal bu baax sa bàyyi la waaye sama nawle nga tëddal bu baax nee na maa moom ñooy bokk lal bi maa ngi sëñ sëriñ Cheikh kon kii doy na sëkk rek bokk ak sëñ Abdou sëñ si jor di sa jur jur la ngay bokk ak El Hadj Abdou benn lal nee na guddi gi damay damay tonk mu ne léeg-léeg rek mu laal ma ne ma Cheikh Tidiane bu ma daw nit rek la nee na gis naa fa kéemaan bu ne ci sëñ Abdou mu ne fala ma defaralali sama làmmiñ ba bu may làkk arab nga yëg ne arab mooy wax arab moom Serigne Cheikh moo ko nettalil boppam mu ne moo tax mu séddee woon na mu séddee woon ma Maodo si sal ñu ma ko sàllalu waaye na mu waxee rek moom Serigne Cheikh lay waxee waaw moo tax si ñabdu Cheikhul Hadj Abdou Aziz séddoon ko Serigne Maodo mu ne ma lam lam defoon ci may it ma def ko ci sëriñ Maodo rek waaw fa tabaarkalla tabaarkalla mu nekk ci xaal boobu digganteem ak Cheikh El Hadj Abdou Aziz ne dama fa la ma yaree yar boo xam ne mu ne boobu daf fekk eh, sëñ Amad eh, góor gi eh, gëcca Ndar rek si kii njaay al Cheikh Alaaji Cheikh maa béy ak Alaaji Ousmane Kan mu ne ñoom góor góoru yàlla yooyu ñu bari ñëw set woon sëñ Abdu ngin gi neew moo tax nga dégg Ahmad Yahya ne laqaytuhu ngin gi neew mawlaahu yardaahu mu ne Abdul Aziz Abdul Aziz ñu ne mu ne azizun ku màgg la inda mawlaahu fa boromam ki ko moom laqaytuhu dajee nag moom ngin gi neew dëkk bu ñuy wax ngin gi neew mawlaahu boromam bi mu doyloo te làqu ci moom yardaahu gërëm na ko moom Abdul Aziz nee na bi góor gi ñëwee bi gan ñi ñëwee papaam Abdou ne ko Cheikh Tidiane demal nga may leen ndox ñu naan nee na ma tànk pot ndox indi ko jox ko pour mu jox gan yi nee na mu xapp ko ne ma demal indiwaat nee na ma dem tànkaat indi mu xëppuma ko ne ma demal indiwaat nee na bi ma tànqaatee bay ñëw góor gi Ahmad Njaay maa bay dagganduma ni ma dindil sa baaraamu déey bii ci biir pot bi sa baaraamu déey bi nekk ci biir pot bi moo tax sa papa di la tuur ndox mi bokkul ci civilisation ngay may nit sa baaraam di laal ndox mi boo koy def ba déwee nit dana la tuur ndox mi du la ko wax nee na ma téye ci njàpp gi indi jox ko mu ne ma nii la maye ndox lu ca baaraam uti seetal la tey jii ñun ñii kuñ ko fi defoon rek nga gis sa bopp tey jii sa baay rek ñun ñii ñemewoo yenn yi rekk nga def ko sa doom ca nga koy ñàkkee sax ndax danaan góor gi bëgguma nee na maay taal matt mi maay boyal ànd bi maay togg maay fóot maay bale nee na lépp maa ko daan defal sama papa ala Abdu ba mu delloo waat ko teg ko ci loxol sëñ Babacar Si fa tabaarakallaahu moo tax nee na genn góor mos naa ñëw ci man dama Cheikh Tidiane yow dañ laa sol ma ne ko xaw ma dañ ma sol de waaye fët fëtti naa bay bëgg a dee nga dem leen jàngi ngeen naan dañ maa sol waaw fët bay bëgg a nga naan dañ maa sol mu ne naari gànnaar yi daan ñëw nag di jamanteeg moom mu ne waaye benn naari gànnaar masumaa yab ku ma jamanteeg man ci woy rek yóbbu naa la teer ba ci Ahmad Yahya bi ko jàngal mu ne sam du moo mooma mujj woon ne ma bàyyil naar bii ngay jamanteel ci woy ndax damay bañ mu am kersa ndax moo ko jàngal fa tabaarakallaahu ci xaal boobu la Serigne Cheikh nekk ci la gimmi mokkal alquran ci à l'âge de dix ans fukki at ci la mokkal alquran di ko tajwid nu raw nii nga xam ne moom la ko Eh, imaam Diop defe bëgg alxuraan it nag bëgg xam-xam dégg ngeen ko mu nettalil ko boppam góor googu góor gi Ibra Kane nee na ko njool la woon yegg ca kaw nee dama ko daan seetaan ndax silwise gi mbaax gi xam-xam bi ni feesee dell ci xam-xam zahir noonu la feesee dell ci xam-xamu baatin fa tabaarakallaahu moo tax mbir mi kenn du ko pelemtu déedéet mbir mi dañ koy dañ koy ñàkk ba am ko mu ne taxul sëriñ kër si mos koo yërëm ci dara daf ko bàyyeek mag ñi ndax la sëriñ Babacar bëggoon ci moom def na ko ci mag ñi mag ñi defaat ko ci moom mu ne booleeg nag sëriñ kër si di ma jàngal ci loxol boppam ñaane léeg-léeg ma ñëw mu ne ma bind sàngam tëral lañ ko mu ne waaw mu ne indil ma tëralaatal la ko nee na waaye boo àddoo rek nga yëg ne bokkuñu waaw mu ne boo àddoo rek nga yëg ne ñii jaa xam bari nañ xam-xam waaye bokkuñu mu ne ndax boo samay gën a leer mooy gën a yëg niveau mu ne ba am bés sëñ Babacar si ne ko Cheikh Tidiane yow daal boo fekkee woon sama Alaaji Malick di nga jubóog moom ndax da ngeen bokki affaire yéen ñaar waaw da ngeen niroo yi mbir trop yéen ñaar waaw soo fekkee woon jamonoom dina nekk sa xarit danañu bàyyi ñun ñëpp di wax ak yow fa tabaarakallaahu ci xaal boobu la nekk mu jën a dem ndar jàngi nekkoon na ndar ca daaray sëñ Maamur Njaay fa tabaarakallaahu def fa ay at ndax way juram fa la gane àddina muy sëñ Babacar Si waaw soxna Roqaya Njaay way juram wu jigéen fa la gane àddina moo tax mu nekkoon ndar moom Serigne Cheikh jàngee fa jël ci leer ya fa maamam bàyyi woon boolewaat lépp ñibbisiwaat bim ñibbisee bokk na ci ñi nga xam ne mosuñu génn ci loxol baayam moo leen jàngal ba bu àddoon nag da ngay foog ne ca naar ya la jàngee fekk moo raw naar yi fa tabaarakallaahu xasiida bi mu njëkk bind moom Serigne Cheikh mu ngi ko bind bi mu amee 12 ans nangoo naa ci làmmeñu maam Xaaji Malick Cissé jinge nga xam ne tey wax naa ko ne ko kuy waxtaan ci Serigne Cheikh te citewu la wala muy bind ci Serigne Cheikh te citewu la booy ut naa fekk boole ko ci ndax mook Serigne Cheikh moom xaj Malick si sa jinge lu sëriñ Cheikh mos a bind taalif ko moom la koy jox moo koy yaxal moom xaj Malick mu ne ma bari na lum taalif loo xam ne daf ko taalif be noppi ne ma joxaat ma ko mu ne yàlla ma dimbale nag mosuma ko sotti sottiwaat ko ma ne ko loolaat bi ma koy nettali ma ne ko loolaa tax mu daan la ko jox mu ne ma am na ci xasida yoo xam ne bu ma ko joxee ba pare daf ma naan joxaat ma xasida bi ma jox ko mu ne keroog laa koy gëj a gis xasida boobu mu ne mos na ko wax ne ko Hajj Malik bu ma yëf yi dikkalee këyit gu ma jot rek bind ci ndax damay bañ mu rëcc mu ne léegi daal na ma jox façon kayit yoo xam ne sax da ngay xam ne waari daat yi mooy leer yi ñoo ko gànd mu këyit gu jot rek bind nee na bu bindee ba noppi woo ma ne ma Hajj demal nga sotti mu ne léeg balaa maa yegg sax mu ma ne boobu indi ko mu ne loolu lim ko ci def kenn xamut nu mu toll ci ay xasida yoo xam ne génnewu ko moom Serigne Cheikh mu ne ba ci mujj dundam am na bés mu ne ko Hajj mu ne ah mu ne ko ah maa ngi dajale xasida yi ma bindoon yëpp bu ko laajee rek ma jox la ko nga génnee ko bu ko laajul it ma seet rek def ni mag ñi daan def rek am fu ma ko làq waaw kon nga yëg ne li Serigne Cheikh bind mu génn nit ñi xam ko lam bind te génnut moo ko ëpp ndax na yoo xam ne nit ñi duñ ko mën a dékku am na mbind yoo xam ne bu génnee nit ñi duñ ko mën a dékku fa ilayka yab na muhammadin naadaani bi rek ñi ko mën a dékku bariwul ñi ko mën a dékku bariwul nangoon naa ci làmmeñu Cheikhul Xaaji Malik Maodo mu ne keroog bi ko Sëñ Abdu way juram njëkkee digg daf ko ne ah Cheikh day màndi ci leer ya mag ña daan màndi mos na li mag ña daan mos te ku yër xasida bi di nga xam ne du xasida gone hmm? koo xam ne dem na bene Seexu na tiijaan yi sama turandoo moo seexale àddina ak àllaaxira ci la nit ñi door a xam ne àddina ay ak àllaaxira ay seex lañ waaw mu dëppoog la ma Cerno Yaxya Ali waxoon mu ne ma monde yi cent vingt quatre mille monde yi mu ne ma dangay ne àddina ne àllaaxira muy benn monde mu ne ma àddina ak benn monde la de du ñaar ay seex lañ yàlla tàqali leen bàyyi bii fii bàyyi bii fële mel ni seex yu juddu rek ki nekk fii kii nekk Angleterre hmm? waaw kañ moo tax nit mën a nekk fii li mu doon wax moom Serigne Cheikh nit mën a nekk fii di wax ak waa Barzak su duloon ay cheikh doo ko mën yàlla def nag soxna astukan ku sonn ci moom la nee na soxna astukan mosu ko wax ma Ahmad yi Ahmad rek nee na mosuma wax ma Ahmad yi Ahmad la ma daan wax nee na waxtu woo diggan mu ne ko Cheikh tiijaan la mu koy wax ñoru mu ne saa yu may wax lu ma ñor rekk bu ma déggee mu ne ahmad rekk la muy wax ñor na ko danaa ko déglu ahmada tijaanee tax mhm. inni ubashirukum bi rasulin yaatiya min baadi ismuhu ahmadu huwa samihi ah moom lañ ko tuddee mu ne bokk na ci sax keroog bi nga xamee ne dem naa élection gagné ñu sàcc ma ma ak Senghor mu ne ma dugg sama néeg tëj mu ne soxna si fëgg ma ne kooku kan la mu ne ma man la sa ndey astu kan Ahmad mu ne ah, mu ne ko mu ne dama dégg mu ne ah, Ahmad ma ubbi ne ko bismillah mu ne ma mbaa résultat yi génn na ma ne ko waaw ah, mu ne noo def ma ne ko gañe naa sax waaye dañ maa sàcc mu ne ko mbaa naqariwu la mu ne ko déedéet naqariwu ma mu ne ko alhamdulillah ndax sa waajur sa bàyyi sëñ Babacar si nee na d'accordul nga toog ca pale ba di àtte Cheikhul Hadji Malick d'accordu ko nee na ma ne ko xam naa ko di dama leen doon wan nag ne mën naa liñ mën mu ne fu mu ko mosaan ñoree rek ahmad la may wax mu ne su nee ahmad rek xam naa ne la muy wax ñor na ko ci loolu la sëriñ Cheikh Gimmi bari xam-xam lool nag bi muy am ñaar fukket ak juróom mook borom daara ji fekk na lu doomu soxna di jàng rek jàng nañ ko bi xam ko am na ñu nit tarbiya bi boobu ci seen way jur sëriñ Babacar si ndax nee na mujj na nag nanguwuma ko ma rax ci sëriñ Babacar moom Serigne Cheikh nee na nangootuma ku ma rax nag ci Serigne Babacar waaw lu ma lu ma lënt rek ci moom laay jubal si nee na sax ñu werante ci mbir maag moom ma ko waaw mu ne léeg-léeg sax ci moom maag maag moom ci mbir rek ma gañe ko mu ne nim mu daan def woy juróom Seydul Xaaj Maalik waaw mu ne ndax sëñ bari na xasida yi yoo xam ne sëñ Babacar si moo ne Seydul Xaaj Maalik bii baat mooy gën a neex bii baat ci digg nee na sëñ Ba Seydi Xaaj Maalik ne ko ànd naa ci mu ne waxaakada ma it noonu laa daan def ak moom waaw ah, mu ne dafa daan wax ma wax ma wax ma wax ma wax mu ne mu ne patt ba mu yàgg mu ne tuuti rek mu woolu ma ne ma moo ne Cheikh Tidiane wax nga dëgg de ah, kon eh, ku yàlla may la woon mu bari xam-xam lool nag waaye li ma gën a itteel fi may dugg si ku teel a sori way juram la ndax yëg ne ndonoom la yëg ne war naa toog palaasam te ku yëg ne nag yaa war a doon sa kilifa noflaay jeex na ci yow noflaay amatoo ko nee na ci laa commencé nag di doñ doñi di ut teranga pour teral sama waajur ne na boobu fekk na sama papa Habib moo njëkk a may sama sama baay sëñ Babacar si oto àddiya oto ak million sëñ Habib moo njëkk a may Serigne Babacar si addiya oto ak un million alaaj Habib si ne na ah góor gi jam nañu ku defal li sa bàyyi yow amatoo jàmm waaw nee na bokk na ca ci itteem mu ne bi dëggal ñëwee bañ laaj ko indépendance ba mu joxe ko mu ne dama ko ñaan audience ne ko ni nga joxe indépendance bi baaxut mu ne te loolu kenn ñemewu ko nee na ñu discuter ma moom mu ne ma wax nga dëgg waaye ñoo ko bëgg nee na boobu am na kilifa yu fi nekk man rek la ñuy bañ a gis te defuma leen dara Serigne Cheikh wax de mu ne man rek la ñuy bañ a gis mu ne juddooguma sax ñu commencé di ma di ma fitnaan nee na ci laa njëkk a dem Paris boobu De moo fa nekk mu ne boobu audience sax yombut mu ne ma bind lettre De Gaulle ñaan ko audience nee na mu recevoir ma xoolee ci jamono yooyu nee na bi ma recevoir ma ne ko loo bëgg mu ne ma dara nga may ma rek ma mokkal senegal def ko dóom te nga dimbali ma ci ndax ña fa nekk dañuy sàggan te yëg naa ne rek buñ ko mu ne De Gaulle summi lonet yi xool ma rongo ñi di bas basi nee ma ne pat ba mu yàgg mu ne ma mu ne dëggool ne ko bu ma ko keneen ñaanoon ma dimbale ko ci waaye yow boo ma ko ñaanee duma ko nangu mu ne ko lu tax mu ne ko ndax sa maam mooy cerveau wu Sénégal <laughs> ma ne dëggool la ko wax lii te boobu agence yombul de mu eh, ne de ne ko bu ma ko keneen ñaanoon ma defal ko waaye yow duma la ko may mu ne ko lu tax mu ne ko sa maam mooy cerveau wu Sénégal kon yow danga war a topp sa tànku maam Seydi Hadj Malick lay wax mu ne ko dégg naa li nga wax mu ne ci laa baagante nag léeg ma dem Paris léeg ma nekk fii mu ne ba bés rek ma dajale trois cent mille ma dajalee trois cent mille jënd ci billet dese cent cinquante mille mu ne dem Paris uti benn projet pour li ma leen doon wax ajjuma bi passé wàllu liggéey ku daan liggéey la. ma uti benn projet mu ne ma toog tubaab bi waxtaan ak moom mu ne ma loo soxla woon xoolal ci jamono boobu nee na ma ne ko su ma amee soixante-dix millions de dana baax. nee na mu ne ma Cheikh Tidiane soixante-dix millions mënoo ci liggéey bàyyil ma defal la ko cent vingt millions <laughs> xoolal ci jamono boobu nee na ma ne ko bismillah mu ne ma luy projet bi ma ne ma tëralal ko yépp wax ko mu ne ma waaye foog état àndi ci nee na naka laa ñëw rek ndekete yéey nañ noppi Senghor jaxase maag man jaxase kook man jaxase kook man nee na ma ñëw mu d'accord ba mu yàgg génnaat ci damay tënk rek ci wàllu liggéey nee na ma ne ko xam nga lu ma lay yëgal bu la ko sa doom laajoon nga jox ko ko bu la denceloo ko fi lu dul sa doom walla ñi ànd ak yow tëyal sa yëf bëggatuma sax faf nee na jël sama avion waajet mu ne ma aéroport la lañ ma dabee ne ma Senghor nee na d'accord ma ne ko kon nañ ma bàyyi ma ko continuer sama yoon bu ma demee ñi ma ko jox ma waxtaan ak ñoom nee na waaye ma diisoo ci genn góoru géwél gu baax nee mu ne ma ñaata at nga lal tubaab bi wax ne nga koy fay mu ne ma juróom-ñaari at jëm fukki at nee mu ne ma ma góoru géwél gi ma d'accorduma ma ne ko lu tax mu ne ma taalibe du yor bor bu yàgg takkal ceinture bi ba mu dëgër nga fay ko ci juróomi at wala ñetti at waaye bul dem ak moom mukk fukki at nee na ma serré la ceinture mu ne ci ñetti at yu teg rek ma fay bor bi dese sama capital mu ne ci laa roulé ba lii ma am yépp ci laa ko am bu la mosaan may nga tiit ndax du mayee lu tuuti waaye mujj na nag la koy jox nag jógewul ci nit loolu man xam naa ci lu wér man loolu moom sama sama xam-xam bu ma xam sama digganteeg moom la danañ ci ñëw ci kanam waaye li ma ci jublu mooy wilaaya goo mën a am ak xam-xam boo mën a am day ànd ak ngay liggéey wa illaa doo jëriñoo wilaaya gi loolu dégg nañ sax biig bokk na ci waxtaanam yi dafa mel ni yàlla ñu préparé terrain bi démb dama taal 2STV rek yem ci waaw ba 3 heures du matin mooy waxtaan moom Serigne Cheikh dama ko seetaan ba mu jeex tegoon nañ ko sax dañ ko tegaat muy wax ci wàllu liggéey ak wàllu ndaw yi takku am jom bàyyi yot yott yott ji ca njaxlaf bàyyi feeñaat gi ci liggéey moom mi ko santaane nag mu nga ca woon action yu ne am na ko ci réew mi ba ci Sococim bii dana ñëw ci biir waxtaan wi waaye li ma ci itteel nag taxul mu tekki jàjjam mu ne ndax gouverneur moo wax Seydi El Hadj Malick ne ko ñu bari dañ wax ne sa papa bàyyi woon na commerce bi mu ne mosu koo bàyyi dafa dem ba xam ne ñim nekkal ñoo koy yàqal mu seq kook tubaab yi waaye mosul bàyyi commerce bi moom Seydi El ne boobu wëllëre tubaabeem yi la daan jox ñu koy jëndal muy jaay waaye nëbbu ko nag ñim nekkal ndax dañ ko doon yàqal mu ne moom it ci la sukkandiku mbay liggéey ak tubaab yi te xaramul dagan na kon ñun luñ ci war a déggee kenn ku ne ci ñun boo jàngul rekk nekkal di liggéey même sooy jàng te mën a liggéey boole kook liggéey ndax ñaq du réer borom te réew mi toll na foo xam ne liggéey rek mooy tax réew avancé ñaar rek mooy tax réew avancé mooy liggéey ak jàng te moom ñaar yëpp def na ko jàng na bi am xam-xam waaye doy loowul Seydi Hadj Malick mooy sama baay mooy sama maam sëñ baaba kër Si mooy sama baay déedéet au contraire waaye nag nekk soldat it ci kanamu Seydi Aboubacar lépp lu nar a jëm si ci moom mu taxaw diggante loolu ak woy juram nee na bés am na sa alaaji Cerno Saïdu Nuuru mu ne fekk Seydil Hadji Malick mu ne loolu moom laa ko niru moom sëñ Babacar mu fekk Seydil Hadji Malick dafa amoon gan yu doon ñëw mu ne laa Cerno Seydou Nourou demal nga ne sëñ Baba Babacar nga ne ko mu ngeen dem gàttandul ma gan yi ci gaar bi alaa Cerno alaaji Cerno Seydou ñëw wax ko ko mu ne ko maa lànk moom sëñ Babacar mu ne ko i eh, yow sa bàyyi Babacar moo sa bàyyi Malick moo wax loolu nga wax yaa bañ dinaa dem ci moom dem ma wax ko Babacar la bañ na mu ne ko dama laa yebal ci moom boo demee nga ne ko Babacar nee na moo lànk nee na ca alaaj Cerno Saïd noonu dëggaat tànk ci Cheikh Alaaji ne ko Babacar nee na moo lànk mu ne Maodo ree mu ne ko Babacar nee na moo lànk nga ree booy ree mu ne ko dafa xam fi ma ko yónni moo tax kooku man rek la bañ man Malick mii bàyyi mu ne ko man rek la bañ moo tax nangu koo gàttandu mu ne ko lu tax yow nga lu tax nga bàyyi ma man ma dem di gàttandu ko Thierno Seydou noonu ma ko mu ne ko yow du la lor waaye day lor Babacar nee naa laay Thierno Seydou Nour moo gàttandu ci gan googu indil ko Seydou El Hadj Malick waaye sëñ Babacar lan mu ne moom it sëñ Babacar léeg-léeg ñu waxaan mbir rek ma ne ko defuma ko mu ne ma lu tax ma ne ko baaxul ci yow mu ne mujj rek daf ma naan noonu la li nga wax dëgg la moo tax daf daal wax ne dëgg yàlla rekk ko moom moom Serigne Cheikh ah bu dara nag nañ dégager lépp te indi yàlla samp ko moom rek a fi ne leneen newu fi tawxiidam nag moom foo ko natt weesu ko moom Serigne Cheikh mooy doyloo yàlla loolu moom daanaka amu ci maas doyloo gi mu doyloo yàlla kooku moom amu ci maas doyloo yàlla rek weesuwul ñépp daw jëmal si la kenn mënulaa gis nga ne meng ni malaak nga gis àddina tukki ci sa kaw Serigne Cheikh nag moo rawoon malaaka balaa nga koo gis àddina tukki